auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain waaw mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di leen baalu àq di leen baalu àq di sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax a baax te di leen ñaan yàlla waxtu bu nekk di leen wax nag tey nag dañoo ñëwoon ak yéen ci secret boo xam ne secret bu am solo la ci seen chaîne bi nga xam ne mooy Coranique les grands secrets nga xam ne ñu ngi ciy séddoo ak yéen yenn ci secret alquran yi nga xam ne day yombal dundu doomu aadama ci zaahir ak ci baatin waaw tey nag dañ leen di indil secret bi nga xam ne guddul def ko jafewul secret bi nag pour jigéen gi nga xam ne danga nekk ci sa biir néegu te mënoo faa am jàmm incha allahu rabbi hii boo ko defee di am jàmm bu soobee yàlla ak yonent bi ndax léegoo léeg nit dana nekk ci biir néegu sëyam te mënu faa am jàmm du juboo kenn lu laa laal ñu ne wa déedéet lu dugg mu yàqu mu defe ne nit ñi ñoo ko noonoot fekk ay mbiri boppam ñoo taxaw jigéen buy sëy ñaar mën naa taxaw taxawal sa mbir yi ñaar moo gën a nekk noonu néega ni ci jigéen ñi nga xam ne dañoo dañuy sëy te amul jàmm ci seen néegu sëy bu ci njëkk mooy ñàkk julli waxtu yi jigéen gu koy def doo masa am lu la neex ci sa biir néegu sëy jigéen gu xam ne du julli benn waxtu topp tekki yi topp ndey dikk yi topp topp topp lu ci ëpp doo am benn bànneex ci sa biir néegu ci ay jafe-jafe rek ngay ne léegoo léegi nag soo demee ci sëriñ mu naan lan sa goro bi la sa wujj bi la fekk du ci ñooñ kenn ci yow la yaa bàyyi li la war yow mi nga xam ne nag bëgg ngaa nekk ci jàmm yow ak sa mbooloom kër moo xam yow ak sa borom kër moo xam yow ak sa wujj moo xam yow ak ca fa nga nekk maanaam jàmm ak ña nga nekkaat da ngay def secret bii rek bëriwul comme ni nga ko gisee nii noonu nga koy bindee kon bismillahi rahmaani rahim soo noppee nga bind yaa salaamu yaa salaamu moom ngay bind waaye da ngay ubbi miim gi soo ubbee miim gi sa tur nga fay def yow mi nga xam ne yow yaay sëy ci kër ga sa tur ngay def ci kaw def sa turu boroom kër ci suuf fa nga bëgg a amee jàmm incha allahu rabbi boo ko defee yow mi nga xam ne yow yaa bëgg a jàmm ci sa biir néegu sëy incha allahu diñ ci génn ci jàmm ci tolof tolof yooyu nga nekk te dina ànd ak wërsëg bu barke. gannaaw loolu boo defee loolu ba def bind ko ba noppi da koy def saafara boole ko suufu kër ga nga nekk su nekkee ne maanaam kër gi dañ ko karo ba doo ci doo mën a am suuf ci kër gi nga génn ci buntu kër gi nga tibb ci suuf si. incha allahu képp kuy xëy di dugg ci dëgg ci suuf soos dana nekk ak yow ci jàmm mu neex ko mu naqadi ko incha allahu gannaaw boo ne defee loolu ba noppi dangay ngay wërdu baat bi waxtu woo jullee nga wedd ko téeméeri yoon yaa salaamu yaa salaamu nga wedd ko téeméeri yoon soo noppee nga taf ko ci sa loxo euh, raay ko ci sa kanam incha allahu rabbi képp koo xam ne moo nekk ca kër ga dana am jàmm ak yow mu neex ko mu naqadi ko incha allahu loo wax waaw danañ wax waaw loo wax déedéet danañ ko bàyyi boo ko defee saafara ba def ci suuf boobu ba noppi incha allahu da koy sangoo lu toll ci 15 jours. quinze jours nga koy sangoo ci biir quinze jours yooyu heure boo jullee moo xam fajar tisbaar takkusaan timis ak gée lépp dangay ngay def wirdu boobu nga def ko téeméeri yoon nga la ko ci sa loxo raay ko ci sa kanam ñi ngi ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm may leen ko